salaamaaleykum euh, cher ami internaute de people 221 yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di rafetlu chaque jour seen euh, teewaay ci suñu page donc euh, tey nag dañoo amoon benn gan gu ñu leen doon présenté gan gu am solo koo xamante ne nii kenn doot ko présenté ci fi nga xamante ne mooy Sénégal rawatina Dakar de son vrai nom Abdoul Aziz ñu gën koo xam ci Laye Diarra lay nuyu nañ la. oui salaamaaleykum maa leen nuyu di nuyu waaw people merci d'être venu. ñu nuy waa Sénégal ñu nuy waa diaspora ñu nuy aussi waa Sicap parce que Sicap naa la la Sicap c'est commune quoi c'est commune préférée vraiment ay nit ñu baax dëkk fa xam nga ay kilifa ay magu réew ñu baax ñoo xam ne dañ may jàppale ci biir ak ci biti ci ci conseil yëpp quoi vraiment maa ngi gërëm daal Sénégal tout entier. Euh, de son vrai nom Abdoul Aziz Abdoul Aziz tey nag bëggoon ñoo xam ndax ñëpp ñu ngi la xam euh, ci turu Laye Diarra Laye Diarra wala tamit bu dul lay Diarra ñu ngi wax euh, Jules Borom Jaaro bi donc mais bëggoon nañoo xam dëgg-dëgg kan mooy Abdoul Aziz. oui Abdoul Aziz man je suis je suis jeune de la banlieue. Mm-hmm. je suis xam nga waaye juddoo Pikine yaroo Pikine xam nga màggee fa et maa ngi woon aussi Grand Mbao sama fiel la parce que dëkk naa fa presque mooy xool. mën naa la cinq ans waa Cédanaye Marie di leen sant di leen gërëm aussi dëkk fa dëkk bu rafet waaw mosuma fa am problème aussi ñëpp nekkoon samay waaye et tout ça waaye parce que ñu bëri nañu wax Jules Diaro bi quoi parce que Jules Diaro bi moom ji moom laa njëkk a def ci film mu nekkoon en 2006 avec Thian Thiandoum loolu moo répertoire ñëw ma am ma def de année bii nii laay jara ko en fait mais ñi nga xam dëgg en général Jules Diaro bi la ñuy wax quoi mais ak génération bi nii ñu bëri laay jara laay jara la ñuy wax en fait na la quoi. est-ce que tamit mën nga ñoo wax tuuti euh, ci sa tey jii ban différence nga gis ci entre ki nga xamante ne nii mooy laay jara ak euh, dëgg-dëgg ak ki nga xamante ne mooy Abdoul Aziz. non différence bi gisuma ci benn différence bu kii parce que c'est juste une c'est deux personnages yoo xam ne bokkul ko en fait fait Jules Diaro bi la. Mhm. Euh, beneen contexte la beneen beneen scénario la boo xam ni bokkul ak laay jara quoi par rapport Laye Diarra c'est une autre domaine oo xam ni si génération bii la ëlbatiku surtout l'actualité du pays mm-hmm. et tout ça quelqu'un un jeune qui fait la revendication de son pays bu mm-hmm. fekkee Jules Diarra bi c'était un jeune boo xam ni il avait peur d'aborder les femmes mm-hmm. xëy sol benn for benn jaaro timide uh-huh. for jaaro commencé xam nga yaakaar ni moo yor àdduna bi xam nga bokkul quoi en fait sans figure gisuma ci différence a à part le moyen d'âge la c'était en 2006 léegi xam nga j'ai un peu grandi peut-être que sama màggaay kese laa si gis mais gisuma si leneen way euh, ñu comme ni nga ko ne euh, nu mu tuddati euh, Jules Diaro bi da nga cay amoon da nga cay jëloon benn personnage boo xamante ne nii da nga timidoon ragaloon jigéen daanawoo jege jigéen jékki-jékki for benn jaaro commencé ñemee jigéen di ñëw ba yow sax dem nga ba yow yaa leen daw mm-hmm. comprendre nga noo noo woon personnage boobu waaw personnage boobu ni ma ko dundee woon mooy c'était dama ci duggoon ba jeex la mhm. comme comme j'ai fait avec mhm. Laye jara ça bi muy commencé ragal jigéen boo ko xoolee mhm. timide avec ses amis ñu koy tooñ mu xëy day mel ni nit ku xam ni maanaam dañu lay sonn ci benn affaire nga xëy yàlla dénk la pouvoir loolu lay wane daal maanaam pouvoir boo ko yoree waaw da nga ciy daw ak yërmande daal xam noo koy gérer waaw ci contexte boobu la goon mën a wax daal affaire bi ñu gis ne tamit euh, après li nga xamante ne ni mooy sa tournage ci euh, nu mu bi gis nañ ne tamit laay defoon na benn euh, pause te ci biir pause boobu noonu gis nañ ne tamit laay génnoon na fi dëkk bi ñëwaat. oui parce que Laye Diaro c'était en 2007. waaye mhm. defoon naa fi pause parce que j'étais parti en Belgique. Mhm. demoon naa voyage doon fa liggéey et tout ça mhm. après cela am motivation ñëw sama réew. pour mën a toog sama réew liggéey et tout ça parce que voyage boobu noonu moo waral pause bi. waaw voyage boobu moo moo waral pause bi ah du leen. mais Laye dafa demoon foofu pour liggéey wala dafa demoon foofu jàngaat théâtre. non man demoo fo demoon naa ba ma demee foofu doon naa am ak waa Paris Noël Noël production daana ma fekk Bruxelles. Mhm. ñu doon def ay petits sketch et tout yaa ma demee Belgique moom franchement dama fa demoon pour liggéey. kon ba demee mais teewul ba nga demee yaa ngi doon continuer tamit def théâtre. non def moom dama doon def des petits trucs de cinéma. et tout ça quoi doon ci inspiré wu nii xam nga. Mhm. maanaam du ci foo quoi maanaam ni ko loo waxoon xam ni. Mhm. dama si doon xëy di ci gont et tout ça quoi bokkul waaw. est-ce que tamit mën nañoo xam laay nan la intégré woon euh, maison de production bi mu njëkkoon a nekk casting la demoon wala dañ ko foo woo woon comment mhm. bi def film bi réalisation Mamadou Thiandoum. d'ailleurs actuellement il travaille pour la Morodi euh, léegi moom booy xool maa moom moo def moo bind affaire bi ko en man je fréquenter fréquenté tout le temps nekkoon un jeune ambitieux bëggoon cinéma doon ci dox doon ci wax ba ma gisee nag ñëw di ma jàngal comment na la ñuy bindee film di ma am yu may expliquer ba ci yàgg mu si la ma proposé na ma am benn film bu ma génn bu ma bind boo xam ni laay jaral la tudd kii la tudd comment appelle encore bi benn jeune la buy nuyu ku mu nuyu nga nopp ko mu ne ko mais lii c'est comique est-ce que li na toj. Mhm. Mhm. mu dekk loo xam ni xam nga. xalaatuñ woon si fii quoi en fait. li nga xamante ne nii mooy euh, Marodi TV. Mhm. Marodi TV nga xamante du boîte bu ndaw ñëpp xam nañ ko fii ci euh, Sénégal. ñu gis ne Laye ñëw na dugg na intégré na Marodi TV ñu jox ko rôle Laye Jara mu def boom Laye nan la dundee succès boobu. parce que man dama neen xam nga man en général man dama ne succès amul quoi mm-hmm. parce que c'est c'est l'appréciation des téléspectateurs mm-hmm. qui fait la volée de l'artiste quoi en fait da ngay def benn affaire mu neex sénégalais yi nit ñoo lay bëgg quoi en fait parce que damay yaakaar ni xam nga succès amu ci quoi maanaam star amu ci dañ doon foo rek juste pour lancer un message pour les jeunes sénégalais pour mm-hmm. nit ñi ko xam diaspora bi yëpp xool si gis seen bopp quoi les abalañu passé mais du succès boo xam parce que amul dara loo xam ni changé na ko suñu comportement mhm. wala suñu doxin wala suñu waxin wala dara quoi on est juste resté fi ñu nekkoon quoi. Mhm, mhm. ngi noonu ñu gis tamit sa engagement ak pétition yi laay ku wax ci théâtre bi laay na ko dama lay ñëw pétition. est-ce que loolu dafa doon loo xamante ni laay da koy dund réellement dans la vraie vie wala juste rôle bu mu mbubb bu mu soloon la rek. quelque je comprends pas et tout ça c'est un tic. c'est que un artiste doit avoir un tic. un tic cest dire que. c' est quelque chose boo xam boo koy wax. Mhm. nit ñi dañ ciy toppaat. Mhm. c' est ça qui fait la valeur euh, film bi loolu moo koy jox valeur a parce que da ngay gis ko am naan pétition te xamul pétition. Ah xale boo waxee je comprends pas da xamul sax la mooy je comprends pas. Mhm. loolu juste pour mettre valeur pour nit ñi di mën a bàyyi xel ci série bi un tic quoi boo xam ni artiste bi da koy créer pour nit ñi mën a ci toppaat day mel ni nga topp benn way la di ci woyaat wala affaire bi mhm. noonu la quoi. te bu ñu seetloo sax euh, je comprends pas bi man boo gis naa da ko doon utiliser sax lu bari ci li nga xamante ne nii mooy Jules Diaro bi. bala xale yi jigéen waree di kii nga wéeru bi dem leen jàngi bàyyi leen mooy je comprends pas quoi. Euh, loolu laay la ñuy wax <laughs> uh-huh. boo xam ni day nekk loo xam ni soo koy wax après nit ñi dañ ciy mën di toppaat. parce que nit ñi uh-huh. bu ñu ciy toppaat. loolu mooy tax nit ñi daw di seetaan série bi. Uh-huh. pour xool loolu la et capter l'auditoire des, des êtres humains pour leur faire divertir. Mhm. de leur faire rêver à travers ton jeu. Mhm. léegi euh, laay bu ñu la newoon laay nettal ñu benn anecdote moo xam ci milieu cinéma la wala li nga jot a dund ci sa vie benn anecdote bu ndaw rek ñu may ko téléspectateur yi lan lay doon loo dund. anecdote non xam nga man moom. anecdote yi moom je préfère xam nga. mooy loolu quoi voilà ci dara rek ci c'est-à-dire anecdote yi xam nga. xam naa ne fan si yaa ngi koy xaar. non dëgg la <laughs> mais yi moom xam nga mooy loolu quoi man je suis pas xam nga man sama problème mooy man je suis pas man dugg man dugg man je suis pas trop milieu quoi en fait mm-hmm. man. ba bu ma si paree rek pare naa ci koo xam. même mën na nekk sa année loo xamante ne tey jii dund ko ak sa waa famille loo xamante ne c'est dafa reetaan lu. Mm-hmm. tey jii ku toog sa xel dem ci loolu rek tag sa xel nekk ci laay rek nga xalangu ree. Mm-hmm. non année yu bëri yu may dund xam nga en fait que si mbedd mi laa ko dundee quoi. Mm-hmm. parfois nga jékki-jékki dox wala nga jékki-jékki di wax téléphone sa nit dégg la affaire bi daf koy ree quoi mu ne. ba keroog mu ne kii ma dégg nii wax kii laay jaral. aw da koy surprendre quoi mhm. mais am kii ndax nii lay waxee réellement. Mhm. waaw ndax man mii di wax ak yow sax dal na ma seetaan naa mooy bala ñoom Mahfouz tege euh, kii bi. prank prank bi. Mhm. donc dama dugg ma gis Laye Diarra ni muy joué théâtre bi réellement ma ne kon kon réellement Laye Diarra nii la mel ndax xale baa ngi daanu xëm. Laye Diarra ngi tiit je ne comprends pas quoi je ne kii yëkkati leen kii sotti leen ko ndox. non parce que ah, loolu moom boo xoolee ak Mahfouz ak ay affaire am. Ah. Mahfouz dafa xaw a doy waar quoi. affaire bay xool jeu la quoi en fait mhm. da nga koy def toujours waaw pour neexal ko mhm. waaw pour mën a mettre valeur am aussi li muy def une mhm. initiative bu doy waar boo xam dama koy appuyer dama koy dama koy saluer quoi en fait loolu quoi parce que ailleurs yi moom mën naa la ma ko woon lim tey jii fii du ma si jug dafa bëri quoi parce que chaque jour la yaa ngi am loo xam ne daal lu bees la sa life xam nga nit ki di ko xool di ko bëggee et tout ça quoi en fait léegi nag suñu mënoon génn tuuti rek ci li nga xamante ne nii mooy euh, domaine théâtre bi laaj laay ndax euh, à part euh, théâtre bi laay mu ngi ci leneen ndax boobu ba léegi laay dégguñu ko ci li nga xamante ne nii du ma ne sax laay may Abdoul Aziz laay wax. Mhm. Abdoul Aziz tey jii ci lan la nekk. oui parce que man en fait à part théâtre bi man je suis dans le transport. yama mhm. amoon nañu une société transport boo xam ne il faisait navigation. Mhm. entre Dakar et le Mali. après. problème yi amoon Bamako si lañ amee des saccagements mm-hmm. euh, sur nos camions et tout ça mu euh, nekk affaire bu catastrophique te mm-hmm. loolu moom dañ ciy dellu gëm yàlla daal xam ni yàlla noonu la ko tuddee woon noonu ko lu waroon am la et tout ça mm-hmm. waaw ñu koy sante yàlla quoi en fait euh, loolu daal man maa ngi si milieu transport bi aussi je suis dans la boucherie je suis dans la viande fait damay jaay yàpp et tout ça xam nga waaw maa ngi si samay activité bokku daal yoo xam ni daal dina am permettre may mën a dund. Mhm. sans sans problème di mën a tere may nekk sama bopp. di mhm. faj samay soxla. Mhm. di dimbali aussi ñi ma war a mën a dimbali ko en fait. nekk sama socialu bopp. ñu gis ne tamit euh, benn question la boo xamante ne ni chaque jour day ñëwaat muy que ni artistes yi dañuy faral di wax naan euh, l'art ne nourrit pas son homme euh, que ni artistes yi mënuñu jàpp ci li nga xamante ne ni mooy li nga xamante ne mooy théâtre bi kese est-ce que dëgg dëgg dëgg. duma bëgguma cité ne Marodi ak mi ngi fay mais est ce que ñi leen xamante ni ñoo leen di jël ngeen di joué ci théâtre yooyu est ce leen di jox cachet yu baax. mais ñëpp ngi fay dafa am ñaari affaire yoo xam ne ñu ngi koy koy jaawale. Mhm. dañ saa da ngay ñëw fekk si maison de production. Mhm. waxtaan ak moom mooy la temps lay fay. Mhm. ngeen déggoo ci. ma la koy fay nga génn film bi tot àdduna. nga revenir ne liñ may fay baaxul. day am. yenn saa yi nit ñëw neexal pour jouer. pour mën a am image comme ni sponsor bi di duggee. Mhm. di am image nen saa yi nit noonu lay ñëwee di neexal ba dugg. Mhm. pour mën a am image parce que yow si li ngay dugg. Mhm. doo xam fi muy toll. parce que tey ngay ñëw ñuy wax la production laay jara. nga ñëw commencé di ko def mais doo xam fi laay jara di toll. man laay jara au début boo ko jëlee ma xool scénario bi xool ko ma xam personnage bi ma xam ne dugg naa ci daf ma leen day cartonné. mais maanaam li nga wax ak sa maison production moom la koy fay même bu film bi génnee am milliard. loolu du loolu du sa affaire. Mhm. parce que là nourrit son homme parfois parce que aussi ni ngay génn télé. Mhm. change comportement. Mhm. change sa habillement. téléphone. moto dugg taxi moto dugg kalandoo. léegi mode de vie boobu ngay changé moo tax yow li ngay dund day mujjee metti parce que chaque jour bu fekkee da nekk artiste génn télé chaque jour muy jigéen muy góor nga bëgg di lekk si restaurant yi cher. di sol yére fu ñu leen nga dem fa. loolu day wàññi day loolu la ñuy wax ne. après da ngay toog ba si ak nan dafa metti mhm. fekk méttiwul yow yaa ko mettil mhm. nit ku nekk boo yanoo li nga attan la mhm. pour man dara du métti si yow dara du la mën a sonal quoi en fait man foofu laa gisee quoi. oui mi ngi noonu ndax gis na ne sax laay il n'est pas trop présent ci li nga xamante ne nii mooy réseaux sociaux yi te dañuy seetlu ne tey ji benn artiste day ñëw def dara affaire bi def buum fu ñu tourné ñu ngi lay gis ci réseaux sociaux yi fu ñu tourné fépp lañ lay gis maanaam ku mais gis nañ ne tey jii laay benn mën naa ne sax dafa dafa retiré wu ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi ndax man personnellement mosuma gis ñu ne ma bii mooy compte laay jara parce que non xam nga exemple am naa sax compte mais mhm. xamu ni kii li ngay def bu nekkee ci yow donc koy gëm am am ñoom dañu gëm cinéma mais mhm. mu ci defoon benn affaire ba mu wër àdduna bi du leen bouger loo mettre fu ñu nekk mhm. xam nga parce que réseaux sociaux yenn saa yi léegi siw dafa yomb da ngay toog léegi jàkkaarloo sa caméra. Mhm. wax benn affaire ñi poste ko mu wër àdduna. Mhm. moo tax léegi da ngay siw sax yaakaar ni li ngay def da nga ko mën. Mhm. fekk munoo ko sori nga ci lool et tout ça te aussi réseaux sociaux maanaam day jël artiste da lay day yàq artiste xam ni mu yàqee artiste mooy da lay yóbbu foo xam ne egguloo fa. da ngay dem ba yaakaar ni yow egg nga te boo e, te boo yaakaar ni egg nga dootoo amati concentration. te artiste boo amul concentration ci boppam boo amul comme liñ naan. mbër day am sa humain xam man lañ koy waxatee. Mhm. day day téye boppam quoi en fait mhm. maanaam artiste soo téyewul sa bopp ci yenn mhm. yaroo sa bopp benn yoon boo nekkee si benn production dafay feeñ. parce que da ngay dem ba dootoo amati temps sax jël livre lire. wala nga jël scénario di ko lire parce que amatoo temps tout temps yaa ngi ci réseau yi temps yaa ngi ci invitation yi droite nii bëgg naa da ngay dem ba nga xam ni. yow boo safoon sax da ngay dem ba da ngay sàpp parce que. li nga woon parce que lii du dara quoi fait mhm. lay gara euh, du dara mhm. lu ñëw la day jàll mhm. comme nañ ne la en 2002 dañ ne la El Hadj Diouf ren ñi ne la Sadio Mané yàlla toujours ki muy indiwaat mooy gën a performant ki fi nekkoon loolu moo am solo Sénégal pour man e-, star yi mu am dama jàpp ni Cheikh Ahmadou Bamba kese mooy star El ah Hadj Malick kese mooy star maam Limamou Laye kilifa dina yooyu ñoo def loo xam ni ba tey xewiwu ñoo ngi topp si ginnaaw mais fii lu fi waaye def la xewi na. dëgg la euh, question bii moom du sama question dañ ma ko yóbbante monsieur moo ma ko yóbbante. nee na ma laajal la ko ndax euh, laay li nga xamante ne nii mi ngi ko doon liggéey euh, Europe bàyyi ko fa ñëw fii nga xamante ne nii mooy Sénégal est-ce que Sénégal mun na fee liggéey wala mun nañ ko fee fay lu ëpp li mu doon gañ a fële. am na ñoo xamante ne ñoo ngi Sénégal boo leen joxoon boo leen yóbboo aéroport ñu xaru. Mm-hmm. waral loolu. yàlla bi nekk fii moo nekk États-Unis moo nekk fépp. fu la yàlla war a dimbalee dina la fa fekk. wërsëg. Mhm. foo ko war a jëli jii di nga ko fa jëli si àdduna. Mhm. man gëm sama réew moo tax ma ñëw Sénégal ah du mhm. leneen. man dama gëm ni Sénégal war naa fi mën am lu nekk. parce que ay nit parce que amul benn milliardaire. bu ñu la Europe la jëlee xaalis am Sénégal. amul amul ça existe pas. amul benn milliardaire booy dégg si dëkk bi ñu ne la. Europe la jëlee wala États-Unis wala dara. fii barke bi fi yàlla def pour man def ko ci benn. taawun quoi ñi nekk Europe ak ñi nekk fii ñëpp benn lañ wërsëg fu mu la fekk la faa lay bàyyi kom ni ma la ko waxee rek am na moom boo ko yeewoon léegi mhm. da nga koy yóbbu France yàlla xam na ni si avion bi lay dee mhm. parce que danaan li may bàyyi fii mhm. mënu ma ko fekk France am na koo xam ne moom lu mu mën a gis fii boo ko fi ubbiloon magasin mu fees dell ak marchandise dem France la gis ku nekk ak sa objectif ak sa xam-xam la nañ bàyyi lépp yàlla mm. yàlla mooy dimbali nit quoi tey ku ma waxoon tey dinaa théâtral sax du gëm waaw mu ngi noonu noonu lépp yàlla la rek mm-hmm. euh, tamit euh, bëggoon naa tamit euh, mënuñu toog fi boog ba jug te waxuñu li nga xamante ne aussi mooy situation dëkk bi ñu ngi génn ci li nga xamante ne ni mooy élection législative yi gis mm-hmm. nañu ni mu demee donc lan la ñu laay mën a wax je ne sais pas day doon loo xamante ne nii danga koy dénk dëkk bi wala mm-hmm. loo xamante ne sa loo ci mën a participer daal ci wax ko mm, kii nit ñi comment ça s'appelle encore Euh, yee nit ñi wala. mi ngi noonu. parce que man ka man quand je parle man je parle pour la jeunesse. Mm-hmm. parce que xam nga gis nga ñi yenn saa da ngay daw ci loo xam ne doo ko xam. Mm-hmm. man dama mere Sonko. Mm-hmm. Macky Sall laay man damaa fo ma damaa mere Macky Sall. Sonko laay woteel loolu taxul réew dem. yenn saa yi nga dem ne Macky fekk taw bi ci yàlla la jóge te aussi fi temps xanaa xamoo ni commune bu nekk moo war defar boppam. Mhm. yéen dama bëgg laaj Sénégal lan la maire di jëriñ parce que dañuy fexe da jël benn Laye Diarra fal ko maire. Mhm. fekk Laye Diarra tollul sax si niveau gérer néeg bay gérer commune. Mhm. commune bi taxi yi muy fay ak impôts yeeg patente yi ci la war a xool yi nan lañ mooy def ba jaar géej ba bu tawatee du am taw. maire bi moo war a dox social ñi nga xam ne yàlla di leen jël ñëw doole yi nga xam ñoo nekk si quartier bi. mu leen defal la mairie tous parce que am na ay mairie boo gis Sénégal i récolte des millions tous les mois. Mhm. parce que kër goo dem léegi booy tabax kër li ngay jëkk a xalaat mooy dagg magasin suuf. Mhm. magasin bu day fay patente. Mhm. et c' est très important. te jeunesse boo nekkee ci réew bul dépendre ci état. parce que état du moom mooy créer emploi état bu la wax mooy créer emploi ci àdduna. wax na dëgg. état environnement lay créer. environnement bi yow mii di investisseur bi si ngay ñëw créer emploi jël ay nit ñi ciy liggéey. loolu est état moo ko mën a def. bul jël lépp bëgg ko jël tey fa sëf ko état et tout parce que jeune boo xëyee toogoo toog sa kër nanguwoo liggéey nanguwoo def dara dañ lay mën a luyee bu ñu la luyee si ngay toppee ci convoi yi di daw di yuuxu di saaga lu ne nga def ko parce que dañ la fay pour ko nga def ko li ngay def bàyyi woo ci compte ana marche bleue 99 2000 bi nga xam ne Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade ñoo ko defoon mhm. ana ñu fawoon Abdoulaye Wade tey gisatoo leen ana ñu àndoon Idrissa Seck tey gisatoo leen mhm. bu bu leen bàyyi di topp ci riirandoo nañ xool lu jëmale suñu réew kanam ñu di ko def jeunesse da nga koy conscientiser Sénégal leen kese la manqué manqué ci côté Macky Sall mooy la communication mhm. il faut communiquer avec ta jeunesse mhm. parce que sa jeunesse yow waroo xaar kenn di xaj sa diggante ak ñoom mhm. il faut ngay wax ak ñoom parce que am ñoo xam ne tey jii dañuy réer nit dina réer ba këram yàlla xam na ko li fay am sax du ko xam day gën di ko wuti ji feneen te fekk mu ngi ci këram nit dafa laaj ngay waxtaan ak moom parce que dëkk bi ñoo ko moom demuñu assemblée nationale pour xeex ak état déedéet assemblée nationale député bu fay dem dafa war a xam ne askan bi la fa nekkal nekk faak Macky Sall wala Sonko wala Abdoulaye Wade wala dara il faut arrêter cela président moomul moomul kii moomul assemblée assemblée voté loi yi ñu fay voté c'est pour pour dëkk bi peuple bi ñoo ko moom parce que nit ñi ñooy fal député nit ñi ñooy fal maire dañ koy fàtte parfois da ngay fal sa maire nga xëy mu takk jabar am ay trois femmes am quatre quatre yow nga toogaat ci commune bi di mer di yàq deram ak yooyu parce que da ngay fal te doo xam lu mu koy fal. Mm-hmm. Sénégal am na commune yoo xam ni balaa nga faa falu dañ xool fi nga juddoo. Mm-hmm. fi nga yaroo fi nga màggee ba niveau nga am et tout ça. Mm-hmm. mais yenn saa yi gis benn universitaire boo xam ni day toog université topp ci ginnaaw politicien boo xam ni mën na ko jàngal. nekk ay diplomate topp ci benn ginnaaw. politicien di daw te ñoom ñoo dàq jàng politicien bi foofu. nit dangay ngay xam sa bopp c'est très important. jàng dafa metti 12 ans 14 ans ngay def xam ma 16 ans pour dugg université dana li di jàngee 16 ans dugg ba université bëgg a topp ci ginnaaw benn politicien mu lay jaxaseeg sa jeunesse di la dofloo et tout ça lool c'est pas important président soo yoree kër yor ñetti jabar moo leen contrôler waxuma laa ngay contrôler réew c'est impossible tey jii koo fi topp bés bu faloo dootoo ko gisaat parce que il a d'autres engagements nit dafay fàtte il faut ñu comprendre loolu Macky Sall mënul sax gérer këram bay gérer Sénégal mais mais tamit laay est-ce que yaakaaroon ne tamit euh, Macky suñu président Macky Sall tamit am na ci aussi benn part de responsabilité ci li nga ñëwoon sànq laa lay rejoindre li nga xamante ne nii mooy xale yi nga xamante ne peut-être dañuy toog liggéeyuñu wala yooyu parce que man tam yaakaar naa ne état moo war créer li nga xamante ne nii mooy emploi. bu déggoon ma nee la état mënul créer emploi. mais pourquoi pas état mënul créer emploi. état état a créer. créer création d'un environnement. mais aussi yi nga xamante ne xale yi non mënu ko parce que état mënul. xam nga non état xam nga xam nga xam nga entreprise. Mhm. dafa am nu muy demee fii mhm. entreprise boo fi gis c'est des entreprises personnelles. Mhm. exemple yu bëree bëri yi ngay gis ay fonds propres la c'est des ay pourcentage la gars yi dajale ubbi ay sociétés dëkk bi ñu war a liggéey ñoo ngi liggéey parce que aussi il faut que ñu mën mooy moytu di leere jeunesse bi. tey jii président bu fi mën a toogaat. li nga fi fekk la ñuy fekk parfois da ngay fal benn ministre muy dox ministre bi ay doom guddi ñooy toj almadi mhm. mais gis nga nit ñi bu ñu gisee ministre boobu ay doom toj almadi dañ koy répercuter si si Macky Sall parce que Macky Sall moo fal ministre boobu dama wax ne la président Macky Sall képp kuy nekk ci kanamam ak ci ginnaaw il faut mu seet ko xoolaat ko mhm. parce que adduna dafa am ñoo xam ne ay travailleurs lañ day mel ni nga ànd ak ay nit ñu ëlbatiku bàyyi la ba nga dugg sa kër ñu doxi ginnaaw di jëw wal dara mhm. Sénégal loolu tax mu développé mhm. maanaam poste yi nga xam ne tey c'est des postes importants ñi fa nekk ñoom ñoo xamul ni parce que da ngay gis Sénégal koo xam ne dof la mhm. ñu fal xam ne tey ñëpp ñu topp ci ginnaawam parce que alal ji la wal dara gis nga am ñoo xam ne tey boo leen joxee cinq mille jënd leen am ñoo xam ne boo leen joxee dix millions mënu mën jënd c'est ça la différence maanaam su ma dégloo bu baax li nga wax mën naa jël exemple ci nga xamante nii mooy Ablaye Wade parce que gis nañ ne tey ji euh, li nga xamante nii lu bari ci li ko yàqal entourage la mhm. est-ce que du loolu ngay ragal ne li dal Ablaye Wade noonu mooy waaja dal Macky Sall xam Macky Sall xam man mii demee mën naa dem ma votel Sonko yow doo ko xam mhm. comme si mën naa dem votel Macky doo ko xam mhm. dam ne la dañu bàyyi di lëre jeunesse bi. dañu mhm. bàyyi di génne jeunesse bi. Mhm. ci mbedd bi ñuy sanante xeet di yàq li nga xam ni c' est des biens publics c' est mhm. pas bien nit ki loo ko bañ bañ waxal ko dëgg Sonko su bonoon mbooloo du topp si ginnaawam. quoi qu'on puisse dire. Sonko bu fekkoon nit ku bon la mbooloo du topp si ginnaawam. mais damay bëgg toujours politique boo koy gañee il faut gagné ko pacifiquement. parce que réew pacifiquement moo koy yor. gañe ko dans les urnes. Mhm. mais bu ko gañee ci ay maanaam damay yàq deru mhm. diw pour fal wala yàq deru diw mhm. pour fal wala affaire mais ba ngeen di fal ba ñuy fal Macky Sall mais on s'est même pas rendu compte. c' est juste un coup de foudre gars fal Macky Sall. parce que boobu Ablaye Wade mi ngi fi woon ni mu doon reñee neexuñu. bëggoon nañu ko fay jëlee. Euh, ci ci du samay wax mais nit ñi dañuy faral di wax naan euh, falu faj mer la. Mm, non xam nga faj mer nag moo tax àdduna du dox. gis nga àdduna nit ki loo ko bañ bañ yàlla waxal ko ay dëggam. man lu ma bëgg-bëgg Sonko ak lu ma bëgg-bëgg Ablaye Wade dama ne la Macky Sall moo ngi liggéey parce que ñoo ngi gis maanaam déjà les infrastructures man état mënu ma convaincre. Mhm. man je suis Laye Diarra je suis un patriote man état mënu ma may xaalis état mënu ma def dara y' a pas un homme politique ici au Sénégal ki a reçu Laye Diarra. Mhm. ça existe pas man damay am samay opinion yoo xam ni c' est des opinions personnelles. Mhm. ma koy wax. nit ki looko bañ bañ waxal ko dëgg. changement nag mën na am mais dama ne la Sénégal mu dee Sénégal ba léegi y a plus de un million de députés. Mm-hmm. un million de ministres un million lu ne mm-hmm. mais Sénégal mu dee Sénégal yaakaar naa quatre présidents la mës am. Mm-hmm. président ci yàlla lay jóge lu ay nit ñoo koy fal. président lu ndaw lu yàlla di dogal la. tey bu ko def si xolu Sénégalais yi doo ko xam. peut-être que sax kii nekk président peut-être que déposé gul sax candidature. te nit ñi bàyyiwuñ ci xel bàyyiwuñ ci dara. Mhm. da bëgg Sénégal quelque soit alpha muy Sonko muy Macky Sall ak ku mu ci doon mu nekk quelque chose de pacifique. Mhm. ñu bàyyi jeunesse ba ñuy sonal. Mhm. di leen perturber ñi génn di sanante xeer di xeex seen biir di xuloo seen biir loolu loolu moo rafetul pour Sénégal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. aussi Macky Sall aussi xool aussi ay arrière parce que du moom moo liggéeyul. mais ñi ko wër ñoo liggéeyul. quoi qu'on puisse dire ñi wër Macky Sall ñoo liggéey parce que dëkk dafa soxla communication jeunesse tey Sénégal du mere kenn sénégalais soxorul sénégalais bu soxor amul yàlla bind ko Sénégal loo mën ci def boo baaloo ñu baal la ko. Mhm. mais il faut que mu revenir aat xoolaat jeunesse am xoolaat ñi mu war a jëflanteel waxtaan ak jeunesse am pour mën a aller de l' avant c' est très très important ñi bañ yàq bàyyi yàqante bi. bañ a bàyyi saagante bi. Mhm. xam nga toog si internet saaga bàyyi jàmbur parce que yenn saa yi ku si internet. nga ne je m'en fous doo nit képp ku gis benn article si internet ñi saaga la ci mhm. yàlla xaman doo nelaw man su ma déggee benn fan si laay jara mu wax ma benn wax parce que benn booy dafa jot téléphone mhm. Instagram mu envoyé un vocal mu insulté ma mhm. saaga ndey saaga ndey yu metti quatre heures ba vingt heures booy baa ngi saaga ndey mais vingt une heures bañ jubóowee dafa ne ma man su guddee damay am reer ma jël sa 1000 francs jënd ko connexion. Mhm. di la seetaan. yow pourquoi su ma la bindee message Instagram doo ma wuyu. pourtant il a raison. Mhm. c' est la communication qu'il voulait. Mhm. mais après dama communiquer ak moom je l'ai ajouté à ma boîte. jox ko sam WhatsApp il était content. mi waxtaan ak man nga xam ne kii xol bi dara nekk ci woon peut-être que saaga na. c' est parce que communication. bëggoon wax ak laay ko. c' est juste le sujet amoon. mu ngi noonu te euh, cher euh, internaute de people 221 ñoo ko gisandoo tey jii ku gis Laye Diarra xam ne engagement bi nga xamante ne nii moom la jëloon ci li nga xamante ne mooy Laye Diarra ba léegi moo nekk ci moom man de loolu laa gis gis naa loolu mais Laye Laye ni ma la déggee nii nga wax sànq bu léegi Laye dafa mel ne makist nga de. non non je suis man je pas politique parce que xam nga tamit aussi man gisoo ma ci mbedd mi. Uh-huh. xam nga man je dëgg la peut-être que Laye Diarra ñu naan activiste la tout tey jii war nga fekk Laye Diarra topp convoi Sonko wala Abdoulaye Wade wala Macky Sall mais ba tey nit mun na wax ni Laye Diarra fekk naa ko fii wala laa ku nekk nag am nga koo xam ni fa far fa nga far mais loolu personnel. Mhm. moi je parle pour l'intérêt du Sénégal. Mhm. man je parle pas pour nii wala naa wala affaire ba tey boo àndee koo àndal dañuy yaakaar ni kii jox nañ ko alal dul jeex parce que moo war a ànd ak kii wala mais dëkk nit ñi dañu war a. tegu nit ci ay base yaru ci ay base parce que yaay moo ngi am ba tey baay moo ngi am ba tey mhm. kilifa diine moo ngi am ba tey te du fi jug ba faw dañu respecté suñu biir mhm. jeunes yi di saagante di xuloo xeex yëpp benn nit moo ko waral fii ku fi fal dootoo ko gisaat mhm. man am na niveau boo xam ne su ma fa tolloon tey non people deux a vingt et un du ma jot loolu mooy àdduna il faut nga jàppee ko àdduna boo ko jëfee noonu la nga xam ni lépp loo gis rek maanaam cest que ça soit mag ñun on est pour le Sénégal ñun lu développé Sénégal moom la tax a jug. Mhm. koo xam ne tey jii bu ñu la dénkee poste nga yóbbu poste bi fu sori. Mhm. looloo tax ñu dénk la ko looloo tax boo nekkee maire ñi fal la maire nga xam ni maire bi yëpp ay sonk lañ. Mhm. bu mu la teree defal dëkk parce que yow loolu lañ la fa tegee mais di nga nekk maire ne non. kii de Sonko la àndal dama ko fal pour mu liggéey. Mhm. wala nga nekk mair maire Sonko nga nekkee APR la dama ko fal duma ko dugal ci maire bi mu liggéey. Mhm. dama ko boole social bi mais fa la dëkk bi jëm. Mhm. mais le Sénégal ne va pas avancer. parce que maire Sonko du koo xam ni maire la ci Sonko la far mais il va pas aider les jeunes. yi nga xam ne si commune bi lañ bokk ñoo xam ni APR lañ àndal. maire bi nga xam ni APR la nekk. il va pas aider les jeunes yi nga xam ni Sonko la ñu àndal mais c'est que ça sert à quoi la commune mm-hmm. donc c'est quoi le rôle d'un maire mm-hmm. cest dire que yaa ngi fal ay maire te xamuñu la mooy seen rôle mm-hmm. député tamit noonu la war a am bu xool ne kii benn saa yi nga xool benn sujet boo xamante ne da nga dugg ensemble opposition moo ko joxe sax nga nekk ci APR nga am idéologie ak nekk démocrate nga voté loolu parce que da ngay xam ne lii jëm sama réew kanam mais bu fekkee tey lu ñu yëkkati nga ne non kii dafa ànd ak Laye Diarra Sonko la léegi insulte Macky Sall ko war a saaga da ko war a xeex wala Laye Diarra Macky Sall la àndal les jeunes de Sonko doivent insulter lay jara fan la dëkk bi jëm mm. ça va pas avancer c'est ça opinion boobu laa lay wax mm-hmm. Euh, ñoo ko gisandoo tey nag dañoo seet si woon ki nga xamante ni mooy suñu activiste de cœur muy Laye Diarra waaw mi ngi noonu te niñ ko gisee nii comme ni ma koy waxee xoon sànq rek même rigueur bi mu nekkee ci théâtre bi rek la nekkaat bu léegi nga seet si <laughs> mi uh-huh. ñëw seet Jules mm-hmm. wala nga seet si benn kii dama lay indi leneen mais nag gis naa ne nag dëgg dëgg dëgg nag Laye Diarra li nga joué ci théâtre bi dëgg dëgg moo nekk ci yow non non parce que man non man j'aime le Sénégal uh-huh. parce que man xam naa ni Laye Diarra nga seet Mm-hmm. man xam naa ne l' activiste nga seet si. Mm-hmm. xam naa ne sama personnage nga seet si quoi seet si woo ma en tant que Abdou Aziz. quoi en fait mi ngi noonu ñoo ko gisandoo léegi nag laay euh, ñu ñu ngi ci jeexatalu euh, émission bi. Mm-hmm. mais avant tout bëggoon naa xam tamit ñi ngi toll tam ci si li nga xamante ne mooy fin de saison wu Laye Diarra. ma bëggoon xam est ce que mën nañoo gis Laye Diarra ci beneen euh, xaar Laye Diarra ci leneen. waaw ah parce que tout est possible parce que ñun sommes nous sommes juste des artistes. ñoo ngi toog suñu coin ñoo ngi liggéeyal ñoo ngi liggéey ñoo ngi nekk ak suñu encadrement. ñu toog di xaar ñu gisee quelque chose boo xam ne intéressant na ça peut apporter quelque chose mm-hmm. scénario bi dem na wala mën na egg fenn fii après on avance sur ce point mm-hmm. mais Laye Diarra saison 1 bi c'était 36 épisodes mm-hmm. avec Brody fu mu ni jeex na on a bouclé euh, saison 2 ou pas ou saison 3 ou pas ça dépend loolu ça dépend pas de Laye Diarra loolu ça dépend de la production parce que loolu liggéeyu production la comme tey yow nga am sa film ñëw proposé ma ko ma xool gis sam bopp et tout ça. Mhm. def ak yow contrat liggéey c' comme ça. tamit laay tamit pare na pour liggéey yeneen maison de production yu dul euh, Marodi. mais tout est possible man kenn moom ma man je suis waaw man maa moom sam bopp man kenn moom ma j'ai pas de contrat avec quelqu'un boo mhm. contrat bu may tënk la dara man suis mhm. là comme ni ma la waxee je suis pour tout le monde et tout ça je salue de passage mon réalisateur G. maa ngi nuyu ñoom pot nga ak. toute l' équipe technique. bi nga xam ni ñoo géré woon laay jara bi tim bi xam nga la ñoom Pa Moussa ñoom Gaydo gaa yëpp ku lim da ngay juum ñoom Mbayang ñoom Anne Marie su kay tout ça ñu leen nuyu di nuyu aussi di si liggéey bi et tout ça di ñaan yàlla daal liy ñëw dàq daal xam nga la yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu nekk si jàmm ak salaam. di nuyu sama grand Mansour xam nga di nuyu sama di nuyu aussi mention spéciale ak SICAP. Mm-hmm. parce que vraiment SICAP moom man commune du ko dàq parce que mm-hmm. tamit. Euh, nit ñu baax lañ. Mhm. ils sont accueillants parce que Sika booy tourné sax avant laaj booy tourné sax ñun bañ dëkkee ñëw premier épisode yi deuxième épisode trois booy tourné yi ñu lay yaatalee. Mhm. bàyyi la seen espace ngay tourné sa c'est des gens civilisés te franc Sika ay nit ñu baax ñu fa dëkk. waaw mhm. ah, am na ay ah, moo tax man ah, damay toujours daal. Sika Ba parce que dama leen xaw a porter le drapeau. aussi xamul sax Sika Ba Sika Ba moo lay moo lay Sika Ba moo lay interview fi mu toll nii. ah oui <laughs> Liberté 5 laa dégg. Liberté ah, ah. <laughs> euh, vive la Sicap quoi. vraiment noonu euh, la nga wax sa dernier mot. Euh, sama dernier mot mooy xam ak salaam Sénégal yàlla na fi jàmm ak salaam di xew. Mhm. ak lépp lu mu nekk la nañ ci ànd ak suñu xel. parce que dëkk bi kenn mënu koo xar ñaar quoi en fait te aussi nañuy bàyyi xel aussi. parce que xam dëkk bu jeunesse bi yëpp di di yuux di dal ñëpp di xuloo di xiiroo di ŋaayoo ñu ngi dégg kilifa diine yi tekk war nañu war a mën a rus quoi. Mm-hmm. parce que dama benn remarque bu ma xool keroog sëñ Abdou sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mountaga dafa ne dafa gànne si Dakar. Mm-hmm. vendredi dimanche. yi mm-hmm. ma gis vendredi bi samedi dimanche bi dëkk bi ne tekk déggoo dara. ajjuma boobu Sénégal ñëpp julli. man dama xool tali bi ma ne tali bi lan moo xew Sénégal. mais ñëpp juboo mais dimanche mais sëñ bi laal ilaa Touba bi la. <laughs> noo dëkk bi tàkkaat mel ni maanaam nit ki noo kersa mais sëñ xam nga sëñ Touba fépp la nekk quoi. sëñ bi cër ba moo koy jox. Uh-huh. bu ñëw Ndakaaru ñëpp ne tekk pourquoi bu ñibbee Touba loolu mënoo ko war a mu continuer. Uh-huh. kilifa doo ruus. Uh-huh. ba mu ñëw taxaw nga sëgg bu demee nga nekk su la neex. dañu sàmm jikko yi quoi yaraat jikko yi. xool suñu bopp quoi xam ne tamit Sénégal dafa am ay culture quoi parce que tamit ñun bu ñu coow suñu biir di xuloo di yàqante di def lu nekk kilifa yi ne tekk di déglu. Mhm. kon nga war a xam ne le Sénégal est en danger. bon mhm. nga xam ne Sénégal il est en danger quoi ñoo ngi yàqante ñoo ngi saagante léegi boo duggee si réseau yi ay la nga fay wax. Mhm. waxal loo xam ne neexul benn Sénégal ak saagande yi commencé na. léegi kilifa diine yi sax bàyyi ñu leen mais pour lan. parce que nit warul mën a am jot. parce que koo gis sa baay la wala sa ndey la. Mhm. koo fi saaga la sa frère la wala sa sœur la. Mhm. Sénégal benn bopp la quoi kon nañ rafetaat jikko yi dem nañ ba léegi Sénégal amatoo droit tey micro. Mhm. di sant nit wala nga ko gërëm. sant la ñu ah, may na ko xaalis. exemple dafa doy waar kër yaa ngi gis làmb Sénégal am man ak Diaw Ketchup ñu ngi tasee Fann ñoo ngi doon def appui pour la VIH sida pour xale yi nga xam ni. ñu am sida ñu xool ñu leen dimbalee. nous sommes des influenceurs. Mhm. on est venu fay ñu si dara. ku nekk jël mhm. pour def participation cent cinquante mille. mu génn ñiy tooñante. ma ne ko damay dóor pétition waa Medina yeeg yooyu. la am Medina yu si xaw a gis seen bopp naan laay Medina ngay dugg nii ak naa. ma ne ko léegi man maay Balla Gaye. Mhm. yow yaay Gris Bordeaux. mais man xamuma Gaston gis Gaston. <laughs> Balla Gaye sama xarit la douze ans ak nii gisuma ko. maanaam nit ki da ngay def ci moom benn appui bu baax boo xam ne. c'est pour développer le Sénégal. pour distraire les gens. nit ñi di mën a kontaan di ci gis kaf la agréé. kenn farul fenn c'est le Sénégal kuy gañ ñoo bokk ndey nañ bokk baay ñu rafetal jikko yi man je mhm. fais de la comédie pour sensibiliser les gens pour ñëpp kontaan. Mhm. bugguma kenn mer muy Sikaab ak Géejawaay ak Pikine nag muy Ndar fu mu mënti doon mais Sénégal c'est le Sénégal. Mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay artistes yëpp benn lañ. nu ñu bëggante pour dëkk mën a naat pour dëkk mën a dem kanam ko man loolu mooy sama mot de fin